mbokki déglukat yi ñu ngi leen di dalal ci rajo takkaaful waxtaan bi ñu duppee waxtu jàmm ki leen koy defal di programme bii di jàppale askan wi ci wàllu koom ñu tudde ko Takaful ci waxtaan bi weesu bi kunja di xalaat ci kàddu yu mu nar a yëkkati ca ndaje ba doomam Moodu sikka na ko ni dafa ko sàggane ngir joŋante yi loolu naqadi ko ba tax xujja baalu ko ba pare daldi ko dig ni dina taxawu njabootam toppatoo leen ak lu mënti xew bi xelam dale moo du wax ko ni dafa bëgg a doon mécanicien xujja bàyyi xel bëgg-bëggi doomam jox ko cër ni ko dina ci waxtaan ak nijaayam chauffeur la ngir mu xelal ko bu mu nettilee lu xew góor gi biraan mii di ko xelal xujja dal di yëg ni ndawu gox bi am na solo ñuy joxe seeni xalaat te war nañu leen déglu ñax leen ñu bokk ci ñi di dogal ci gox bi ci dëkk bi di ceenu fenn ci biir Mauritanie xujj ak njabootam ñoo fa nekk ñu nettali leen seeni jaar-jaar ndaw yi itamit dañoo war a yeewu ci seen àq ak yelleef dina tax ñu gën a gëm seen bopp waaye itamit am sañ-sañ dugal seen loxo si naataange askan wi. mel na ni Moodu ndaw ñi soxla na nu déglu leen te boole leen si bépp dogal bu leen itteel. ja gaawal ja gaawal. lan la lu xew. war nga ñëw si nu mu gënee gaaw si ndaje ma Lamine ngi fii di may ñëpp ay neexal te di la ŋaaña. lii mënul ne saay saay bu amul lu muy seet dara jomb ko xujj ànd naag góor gi biraan ci saasi ci bërëbu ndaje ba ngir xool lu fa xew monsieur le maire dama bëgg xam lan ngay wut fii ci mbooloo mi nga xamante ni sama kàddu la ñuy déglu ah, ñëw nga man dama ñëwoon déglu la dégg naa ni ku mën a wax nga comme na yéex a ñëw ma daal tàmbali waxtaan ak nit ñi. nga profité daal di séddale ay yére ak ay mbaxane. ah dama leen doon bëgg rek xam nga. xam nga lemin ni woon woon ni na mënatoo jënd kàddu ji su ni ko daan defee déglu leen ma yéen ñëpp ngeen baal ma déglu ma. lu leen tax a ñëw fii mooy yaakaar gi ngeen am ci ki nar a nekk maire mu won leen misaal bi gën déglu leen mu saafara seen jafe-jafe yéwénal seen dund te muy dëgg ci moom. te boole leen ci lépp lu muy def ñëw leen fii ngir wut ay yére ak ay mbaxane dëggalaam deet wax nga dëgg xujja an ah, kay dëgg yaakaar ngeen ni man ngeen woolu ki nga xamante ni lu mu leen digoon lépp defu ci dara bu mu faloo ak léegi tey jii mu leen di neexal ngir ngeen fàtte loolu déedéet kon bàyyi leen yére yi foofu te ngeen ñëw nu waxtaan ci lu ñu war a def ngir ëllëg sunu njaboot seen dënd mën a yewoon ah kay dëgg la kay bëgguñu yére yi déedéet bëgguñu kër duñu bëgg mbir yi soppeeku aha ah, na soppeeku mbir yi soppeeku ngir mbir yi soppeeku dañu war a ànd liggéey te dañ ci war a boole ndaw yi ndax ñoom itamit am nañu seen xalaat seen ëllëg lañuy ñuy waxtaanee gis nga yaakaar naa ragal ñàkk moo tax nga indi yére yi tey yaakaar naa ne xujja moo la ëpp xalaat ëpp la fulla njiit dëgg te dina am ndam jigéen la amul benn chance dinañ gis résultat yi eh acca leen dem. tey bésu voté la ku jëmmi ngi xaar résultat yi ci këram ànd ak borom këram demba ak Mbay mu ndaw. Mademba tey jant bi saf na de maa ngi dee ak mar. du dara da nga xaw tiit rek ci résultat joŋante bi. si suba ba léegi toggaloo maa ngi dem indil ndox léegi. yaay yaay tonton Birane dafa soxor nangu ñu bàyyi ñu vote. jëm nañ bu sonn waaye mu wax nañ dem wala mu tëdd. waaw loolu jaado la Birane am na dëgg amagu leen ak woote xale yi. waaw yaay yow si jongante bi nga bokk te ñun dul na bëgg a voté. loolu taxul ngeen am ak waaw lu tax amuñu ak vote comme ñeneen nit yi. ndaxte ay xale ngeen am xujja sa ndoxo ngi nii lootul yàgg ngeen mën a woote ba leen amee fukki at ak juróom-ñett. waaw baax na lool yéen xale yi ngeen am yéen a wote ak wote lu am solo la. waaw man itam bëgg naa am ay àq donte sax xale la. waaw am ngay àq sama doom ay àq yu bari sax bu mel ni xale àdduna bi yépp. yaa loolu dëgg waaw waaw àq ak yelleefu xale àdduna bi yépp. ñoo ko bokk maanaam xale yépp ñoo yem yelleef àq góor ak jigéen. donte sax jigéen la. waaw waaw donte sax jigéen nga. ak ak yelleef yooyu bare nañu ngir sàmm xale yi. bu nu mën mucc ci bépp xeetu métital ngir ñu mën a faju ngir ñu mën a jàng waaye itamit ngir ñu mën a wax seen xalaat. waaye ñun tamit amuñu àq wax sunu xalaat. mag yi duñu déglu xale yi. waaw léeg mu am de. wax nga dégg de moo tax itamit am na solo xale xam seen àq ak yelleef ndaxte soo xamee sa àq ak sa yelleef di nga fexe ba kenn du ko jalgati lenn moom xam naa ko su ma faloo dinaa faral di jox ndaw ñi kàddu. man ak seen yaay dinañ fexe ba ngeen am seen àq ak yelleef. naka la naka ngeen di def naka la. ci misaal war na leen jox ay ñam yi sell te wuute te méngoog seeni at ngir ngeen mën a màgg nu mu waree. waruñu leen liggéeyloo liggéey bu metti da ngeen war a jàng. keroog yëgti naa saako juróom fukki kilo man ak sama xarit yamar bari naa doole de yaay. lan lu tax ngay def loolu say at mayu la ko sama doom yàlla baax na ba gaañuwuloo. papp yamar moo wax na ku nekk ci benn saako. waaw moom war leen sant loolu du yow du doomam ndax doomam dafa ndaw mënoon ngeen ci jëlee ay métit lii du liggéey bi nga xamante ni gone moo ko war def. waaw Yamar bis bu nekk dafay liggéeyal papam dematul sax jàng. ah bon. waaw te bu Yamar bañee papam daf koy tex. jëftin bii ñaaw na baaxul te itamit mën na jural Yamar bu ndaw ay gàllankoor. def nga lu baax bi ñu ma ko waxee. moo war dem seeti ji baayam. saa su nekk mag yi ñooy mettital xale yi di leen dëgg la sama doom jafe-jafe xale yi saa su nekk ci mag ñi lay jóge ñoom ñoo leen di xañ seen àq ak seen yelleef. ba pare leen lor. Anta dem na seeti magam xujja ñu toog di xaar résultat wu joŋante yi Anta mu ngi mel ni ku sonn lool te lot. na ngeen def. Anta na nga def. waa tey doo ma kekkantoo da nga feebar wala lan. nga baal ma góor a mooma merloo te ba tey maa ngi mer. sa taaw waaw lu tax lu mu defati. dafa bëgg a bàyyi jàng nee na amul benn njëriñ. waaw moom lan la bëgg a def su bàyyee jàng. xaw ma laajuma ko. ah lii de doy na waar. maa ngi leen di bàyyi seen biir maa ngi dem seeti résultat yi ndegam génn nañu. lu xew xujja da nga bëgg a wax ni waruma ko woon xule. yow xam nga ni dafa war a jàng te jàng am na solo. waaw ahan kay am na solo lool waaye itamit. Ah, gis nga xamoon naan daan ko wutal lay. déglu ma sama rakk góor am na fukki at ak juróom dootul gone xale góor la léegi da ko war a déglu te jox cër ay xalaatam su ko defee dina mën waxtaan ak yow nga koy xelal su boobaa dina la woon mhm. xujja nan laay waxtaan ak ay xale danga ma teg dofoon walla. waxtaan ak xale taxul nga nekk dof. nekk dof mooy nga bañ waxtaan ak ñoom bañ lay jàppale ngir seen ëllëg mën a yewoon mën a baax. xam naa ne am nga dëgg waaye dama sës dama meroon. xam nan ngay jëflante ak xale yi yombul. ñun mag ñi ñoo war a góor góorgóorlu te delloo suñu xel te dal waxtaan ak xale yi ba seen xel mën a dal ñoom itamit. yoo mën a wax waaye neexul def de. Ah, waaw jafewul def de danga war a xam kañ nga war a waxtaan ak ñoom. bàyyi leen ba ñu meddi nga ànd ak dal te teey te leen sëkkee itamit nga xalaat ni su doon yow lan nga war a def. xujja xujja xujja. lu xew lu xew. xujja résultat yi résultat yi. lan la lan la. waaw wax nu Lamine moo gañe loolu la. xujja yow yaa jigéen bu njëkk nekk meru commune bi. wooy wooy xujja gañe na wuu xujja gañe na ah lii de moom du dëgg. lii de moom gëmee moo ko sax. yaay yaay gañe nga yaa man ñëpp yaa fi gën. bravo yaay gañe nga yaay maire dëkk bi léegi loolu lu muy tekki. ah sama doom. loolu mooy mi ngi tekki ni léegi liggéey bi soogaam tàmbali. wooy wooy xujje gaañee na wuu xujje gaañee na. mbokki déglukat yi mën ngeen topp nekkinu xujje ak njabootam ci waxtaan bii di ñëw ñu duppe ko waxtu jàmm ngeen mën koo déglu ci rajo Takaful dong nekk leen ci jàmm.